sëyu léegi yi liy tax dootul yàgg olof njaay dafay wax ni ku amul kilifa jinne di sa kilifa te sëy ay kilifa ñoo koy ŋànk su ma jëlee tey sama doom di ko maye te dafa lu ma la procuration yoon mayu la nga maye ko bu ñuy maye su kii ñaanee kii may ko ki ñu bàyyilee doonte jurul xale bi danaa maa ngi koy maye ci ndigalal kilifa ak can gu mat bu fekkente ni nag dangay ngay sëy sa yaay nunguwut sa baay nunguwut sëy bi doo ci mën a am barke waaw ñaareelu pàcc bi ci des mooy sëy dañ koy jàng boo takkee bu ñaari gone bu ñu sëyee dañoo war a jige seen ndey jige seen baay buñ jigee seen ndey jige seen baay bu dara yëngoo ñu ni déet du noonu kat bu dee ku góor ki ñu ne ko du noonu bu dee ku jigéen ki du noonu mu ne nu ñu ne ko nii la bu ko defee buñ demee ba sëy ba dëkk bu doom juddoo judduwaat bu boobaa su ngeen beroo ndax sëy doom dana ko dëgëral yàgg dana ko dëgëral bu ñu beroo léegi dootuñu am problème parce que tàggat nañu leen ci jàngal nañu leen ko. gone gu jigéen ndey ma koy jàngal sëy gone góor bàyyi ma koy jàngal sëy waaye day fekk nag. soo takkee jabar sa jabar bàyyi la nu ngoo dëkk ak sa yaay mbaa mu nu ngoo dëkk ak sa baay waaye léegi bu fekkente ni bii su fekkee yaa ngi labat bala ngaa labat ba mu dëgër bala ñoo ñaani da nga wut appartement yóbbu fa sa soxna du fanaan ak sa yaay du fanaan ak sa baay. kooku bu ngeen xuloo du ngeen xam ku du ngeen am ku leen àtte sëy bu njëkk bu yëngoo ci reeru bi lañ ko daa lañ ko daa defare mbaa ci añukaay bi ci añ bi rek ak reer bi fi la ñuy waxtaane ba sëy bi melaat na melan waaye loolu ay mag a koy def sëy dañu koy jàng ni ngay jànge école noonu nga war a jàngi sëy moo tax bu jëkk gone gu jigéen ñu daa ko jox tàntaam yar ko mbaa maamam yar ko mu nekk ca ñoom wala bàjjanam yar ko wala ndeyam yar ko ci penkam xele bu góor bi ci boppam xool ñaari waajuram yi ni ñu àndewan ci muñ ndax nag euh, sama bàyyi ne na ma soxna yi du ñu vente libre location simple la kon boo leen yore foog nga muñ parce que nag itam néew doole tax ñu may na ko ndax gone gu jigéen gi am ñaar fukki at nga ñëw ne baayam dama ko bëgg nga la nga ndeyam dama koo bëgg ñuy la ñaar fukki dërëm ak juróom lañ lay laaj tey ñaan yàlla kenn ténj moroomam kooku soo koy ree foog nga muñ waaye nag gone yu góor yi aussi am na ci ñoo xam ni jabar aawa dañu koy mat ñaareel dañu koy man jabar góor gu am jom moo yor jabar donte xale nga man âge di 19 ans laa am takk soxna sama soxna am 17 ans ma am 19 ans mu am 19 ans ma am 21 ans mu sëy si. waaw. Mm-hmm. jom mooy sama aawo. Mm-hmm. ma di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli wér. amiin amiin sëy de mariage maa ngi moom. musu teyenu ndabal pay dem seen kër te ci taax yi laa ko takk yóbbu ko ci àll ba jëlee ko ci togge gaz. dëkk ci àndir yóbbu. bala nga ni muñ naa ba sonn dangay ngay sëy fanweer at mbaa nga sëy ñeent fukki at jigéen bala moo bala moo sonn ci sëy dañ ko tëral ci koosu bàmmeel jëkkëram tiim ko ñaanal ko mu dem àjjana yi firdawsi waaye bu fekkente ni bii parce que sëy ak seet si dafa bokkul ak seey si mm-hmm. am na ñoo xam dañuy seet si bi a ah, sa doomi nijaay diw dey moo la bëgg ñu ne lu muy liggéey hmm. ndax tukki na kooku bu dikkee du fa yàgg dafa am lu muy seet bu ko gisul day waññiku il faut ñu dellu ci baas bi baas bi mooy jigéen bu ndeyam dee dund baayam di dund ñu may la ko te baayam mayu ko ci ndigalam hmm. mayu ko ci ndigalu joxu defal ndigal hmm. ndeyam joxewut ndigal mayewu ko ku ko takk nawle am amoo soxna. mais du jeex quatre-vingt-dix pour cent ndey yi di dund bàyyi dund ñu sëy nit lu muy def ci kaw suuf te sa ndey ak sa bàyyi àndu ci mën nga cee bañ am barke. dëgg man ba fii may wax ak at yi ma am. Mm-hmm. sama aawo ba ci kii ma mujj takk bu yàggut damay dem ba sama baay jox ma ndigal ñaanal ma. mais bu njëkk dañ leen daan utal soxna daawu leen xam seen soxna daaw leen def sax yi xale di def di bëggante wala di génn te léegi te sëy yooyu ñoo daan gën a yàgg léegi xale yi ñooy génn bëggali seen bopp te du yàgg ñu tas. mais loolu wax nga ko. ko kay wax nga ko mais question bi tontu nga sa bopp. bu fekkente ni dañ lay wax sa nijaay ja nekk baag sàmbajoor Dior wala sa doomi bàjjan ba nekk mbos moom laa bëgg nga seeti ko. nga dugg ci biir sa yaay ne la déedéet kay su ma seen nag doomi doomi doomi doomi doomi doomi Moussa Seck ji nga xam ne mi ngi Sacré kër xam nga yaayam mooy commerçante bu mag boobu demal seeti ko sëy yàlla sunu borom moo ko santaane bu fekkee da ngay sëy te yàlla tax doo ci xaar ludul yàlla may la ci njaboot gu barkeel nga nekk ci ba dee dem àjjana te ñett boo ko defee sëy am ci ñett boo séyee ngir yàlla yàlla dana la ci may doom ju baax te doom ju baax lu neex ci jigéen la nga sàmmal sa boroom kër boppam sàmmal ko sàmmal ko sa bopp sàmmal ko alalam da ci am bànneex ci moom mm-hmm. bi ci des boo dee dem àjjanay firdawsi jigéen moom rek la yàlla sunu borom defal di sëy ak boroom këram ñu sëy téeméeri at wala juróom-ñaar fukki at saa bu xëyee tooñ jëkkëram yàlla dogal jigéen ji jëkk a génn àddina borom këram tiim ko seede yi toog mu ni sama soxna si sëy naa ak moom juróom fukki at lépp loo xam ni mas na ma ko def ci tooñ ci lu mu yëg ak lu mu yëgut lu ma yëg am lu mu yëgut yàlla sunu borom maa ngi lay tàllal samay loxo sama soxna si jéggal naa ko yàlla na nga ko jéggal bu ñuy suul ci pax bi rek muy dem àjjanay firdawsi moo tax sama sang ba Serigne mbàkki soxna loo moom Cheikh Gaynde faat ma moom moo du mustafaa moom sëñ Bamba Xaadim Rasool daf ma doon xaadim ma ne ko Sidi Bàllaay sa ma xurëja biram Fatma mu ni ma jigéen ñi bu ñu xaman ci li jëkk a génn àddina seen jëkkër jigéen ñëppay dee bàyyi seen jëkkër àddina kon gone yi nañu dellu siwaat ci am kilifteef foofu yit kilifa yi am nañ ci part responsabilité parce que yow la yàlla dogal nga takk soxna doom damaa newul jibu jiib juddu deful appel d'offre ne damaa bëgg a juddu mais bu fekkente ni da nga takk ay soxna gëngale ci kër gi ñu am ak njaboot nga mel ni man sab añ doyut sab reer doyut sa ndékki doyul mënoo contrôler say doom bu ñu añee ndax bu ñu demee ndax bu ñu demee ci àddina bi ba nga gis borom kër boo xam ni añ ak reer lay garantil waa këram garanti leen ndékki wala mu garanti añ bi képp bu ngoonee ku ne dóor sa bopp fenn kooku say doom bu ñu yàqoo yaa leen yaa leen cebal soo bëggee yar say doom li la yàlla sant ci ñoom sant la ko ci seen ndey danga nga koy def yàlla def ne soxna si soo ko jëlee indi ko ci kër gi na ko dëkkal na ko dëkkoo su feebaree na nga ko faj boo feebaree faj sa bopp bu soxlaa nga jox ko ànd ak moom dem ci bokkam bu say bokk xewlee nga jox ko ànd ak moom dem ci say bokk boo dee mu jël sa mais mënuloo nag li la war ci njaboot gi parce que soxna si bu feebaree yaa ko war a faj yaa ko war di dundal di ko sàng di ko dëkkal di ko dëkkoo lépp yow la war soxna si bu amoon ay milliards sa yoon nekku ci su dee am cent 100000 francs par jour ngay am 10000 francs par jour sa 10000 yooyu ci la war a añ reer ci ndékki ci su feebaree ci la war a faju doom yi nga am moom yaa leen war a sàmm yaa war a sàmm seen njam seenam njàng seen diine seen ngor seen dëkkuwaay seen ak col lépp yaa ko war a sàmm yow muy góor ki yow la ko yàlla sunu borom teg bu fekkee nag da bàyyi sa njaboot nekk mbal kaw nekk mbal suuf kooku yàlla nañ ci yàlla musal waaw nga bu ñu tollee ba jamono jigéen sa boroom kër wax nga taxaw tontanteeg moom dem ba yëkkati kàddu saagu ko wala dem ba sax ba yegg ci poñante ak moom. kooku amuloo soxna nawle nga am. tontu ba di la poñe. ànd ah, dagan na tàggoo daggan na. sama baay dafay wax ni. sama nee ko. ku nunguut a dëkkeeb gent mën ngaa bañ a am doom ju baax ndax jabar ji nga am jabar bu fekkente ni du soxna soxna jabar nga am mën nga cee jur sàcc mën nga cee jur tuxkatu yàmba mbaa jaaykatu dorog mbaa agresseur góor dafay am safara soo manee dangaa war a am safara soo mënut dangaa war am safara waaye te sama maam dafay wax sama bàyyi ni ko ku mottuli sa dépasse mottuli sa baat waaw ku mottuli sa dépasse Alaaji Kebe mottuli sa baat benn mooy góor dangay ngay nungoo dëkkeeb gent yàlla sunu borom moo bind takk waaye boole na ci tas maa ngi wax toujours ne ku mel ni man ay naa féq lanu dinga gis ku fase jabaram ci ceeb bi ñorul fase jabaram ci foo demoon fase jabaram jabaram ci koo àndalan fase jabaram ci lu tax nga tontu ma waaye gisagoo ci Sénégal kenn ko fase jabaram lu tax julliwoo mbaa wóoroo jigéen ñi dañuy nekk ca làng ga huit soo ba cinq heures matin kenn du julli nga nekk ci biir kër gi ak sa jabar ak say doom waxtu julli jot nga julli dem sa yoon xamoo sa jabar julli na fajar xamoo julliwul suba xamoo julli na tàkkusaan xamoo julli na timis xamuloo dara da teguwul fenn. man samay waa kër damay wax ni ku firi ji doo dem màkka. samay soxna da ngay jàng lu bon bon nga xam faatiya ak saar. Hmm. xam nooy sangoo set. xam nooy jàppe xam Faatiha ak saar xam boo koot boo téye say woom looy wax boo dóori sa ci suuf looy wax booy taaya xam looy wax su fekkente ni danga ni ab jullit nga sa jëkkër war a jël fukki million dépensé ko yow nga dem màkk loolu euh, vacances la góor ñi am nañ ci responsabilité nañu waxante dëgg ni nga def ba jël sa doom di ko jël oto spécial mu di ko yóbbu école arabe école école français ba mm. te mënoo jël sa doom di ko fayal cinquante mille ci arab bi nun dañuy nax suñu bopp sunu maam ju baax ji yàlla na yàlla yokk ay leeram dama ko mës dégg mu ni Sénégal bari na ay jullikat waaye bariwul jullit muy maam Abdou Assis da ngay xool bu école français bi dee ubbi di nga gis benn xale nga ñàkk ci un million daara alxuraan bi nekk ci sa pegg doo ci ñàkk cinquante mille francs moo tax muy ñaanal sëriñ Makhtar Naar moom sëñ Mat Saxiir Lo yàlla na yàlla dolli ko wér. ci barke yonent bi. di ñaanal xam nga kokki benn taalibi rek la am. am na junni am na am na juróomi junni ak juróom ñetti téeméeri taalibi mais benn taalibi rek a fa mooy aas ndaw. koo koy taalibi bu mag bi. yàlla na ko yàlla fayal ci barkeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. loolu daal mm-hmm. xam nga diine bu jëkkee ci nit lépp baax mm-hmm. xam nga diine dafa am solo gone yu góor yi ñenn ñi jàngaluñ leen diine gone yu jigéen yi jàngaluñ leen diine bu fekkee ni bii jàngal nañ leen diine baa aas bu ñu leen di mayee ñu toog kenn ku ci nekk imaam bi wax la li war ci sa morom xanaa xamuloo ne ba tey nun Sénégal wala nun Afrique li yàlla santaane ci sëy defuñu ko sëy bu ñuy mayee ñaar ñi ñuy mayee dañoo war a toog ñu xut ba wax leen leen yàlla sant ci sëy bi wax ku góor ki li ko ci war wax ku jigéen ki li ko ci war. léegi sëy mumbaay la. léegi mumbaay la ak po. moo tax du yàgg. yàlla nañu ci yàlla musal. en tout cas li may conseiller parent yi. mooy nañ delluwaat ci base bi. mais noonu aussi bokk na tamit ci leneen loo xamante ne aussi lu ñu nemmeeku la ci jamono ji ci góor ñi dóor sa soxna papa lan moo ko war a mën a indi fan la mën a góor war a mën a yegg ba jël loxoom di ko dóor ci loolu teguma ko ci fulla ak fayda hmm. ndax man bi ma amee dix-neuf ans laa takk soxna waaye mosuma dóor te maa ngi bëgg a romb naa si danaa yuuxu nag. Mm-hmm. man dama tàng mm-hmm. dama tàng ci samay jabar tàng ci samay doom mm-hmm. mais samay doom gis nañu résultat tàng li muy jariñ xam nañ ni nag wéq na doomam waaye bañu ko samay jabar it xam nañu ni tàng gi ma tàng ci ñoom amal na leen njariñ mais dóor bokkul ci sëy bala ngaa dóor mm. wool ki la ko joxoon nga delloo ko ko mu yóbbu tax ñaar dafa am ci dóor dóor mën ngaa tàmbali dóor waaye doon ne su ma dóoree 3 minutes damay arrêté wala nga ni suma dóoree ba yegg ci nopp bi arrêté booy dóor da ngay tàmbali waaye doo xam fooy te lu ne mën na cee xew. comme nag lu ne mën na cee xew. amut benn jëye ci àddina bu jigéen war a mën a def ba góor war koo mën a dóor boo xam ni bii bàyyi mu dem du ko remplacer. lu mu garaaw garaaw garaaw parce que man jàpp naa ni soo jàppee jigéen dóor ko ba ñu yóbbu hôpital mbaa nga dóor ba man loolu laa gëm kon bala ngaa dóor bu fekkee dangaa danga dangaa yuuxu mu yuuxu nga saaga mu fayu wool ñi la ko joxoon ne leen kii yéen a ma ko joxoon ci fartas yàlla ak sunu bu fekkee daal sëy si woon nga ne leen mbooleem lu ma ko mayan may naa ko ci xol bu sedd guy na ñëw jël ay bagaasam dem jàmmam nga liibar mu liibar nga wuti keneen wuti keneen boo dóoree damm loxo dem kaso boo reyee moom musiba mbàbba kumba la c'est catastrophe kon li war góor gi loolu ma digal góor gi bala ngaa dóor musiba dina ci fekk baal mu ñibbi fa nga ko jële woon ku jigéen kiit bala ngaa dem di togg diwlin sotti sa jëkkër mu dee nga dem kaso say doom am woy woo xam ni dootuñu mën a sëy ci àddina dootuñu mën a am jabar ci àddina mm-hmm. ndax jigéen bu tiim jëkkëram sotti ko diwlin ba àddinay tukki say doom yàq nga seen woy kon loolu bala nga koo def dellul ca ña nga ña ña ña ñëwoon ñaan la ak ña maye woon ngeen ne kat man fii laa mën a yem mm-hmm. mu jeex jàmm am maajoor falu Euh, naka nga gisee concept ne jamono ji bokk na ci li sénégalais yi jël papa da ngay sëy ak sa borom kër ba yàlla def tàggoo am ku nekk dem yoonam waaye dangay ñëwaat léegi ci télé bi di nettali la nga dund foofu ci métit mel ni euh, da ngay jaxaseeg sa borom kër wala da ngay jaxaseeg sa jabar ak sénégalais yi léegi loolu lu ñu faral di gis ci askan wi. waaw xam nga xam nga sutura. xam nga jigéen ji séy ak boroom këram ba tas dem di nittali li mu doon dund ci këram. kooku xamul ni mi ngi yokk mi ngi wàññi boppam di yokk boroom këram teraanga. boo demee ba toog ci mbedd mi wax la nga doon séyee ak lañ la doon def ci sa kër ña ngi koy waxal boo jógee yow yaay doon seen kendal keroog yow la ñuy waxtaane benn mooy muy jigéen ñi di góor ñi nañu bàyyi tele yi ak rajo yi bàyyi réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi sëy duñu ko defaree ci tele duñu ko defaree ci réseaux sociaux rafetul jaaduwul góor du ngeen sëy ba am ay doom ndax dangeen ngeen di xam ne fiis yàlla moo bind sëy moo bind tàggoo te jigéen ji nga xam ne yàlla sunu borom da koo yëkkati ni ku bëgg mu fukk noonu dana bëgg dana ca jaar boo lekkee ci ndab ubal ba mu jekk sa teraanga la boo lekkul ci ndab ubal ba mu jekk mm-hmm. loolu wax la boo xam dañ ko waroon yóbbu ci école yi nit ñi di ko jàng mm-hmm. jigéen bu ngeen séyee ba tàqalikoo suturaal ko mu suturaal la ngeen àndaat ci lu rafet mm-hmm. ndax olof njaay def ni ku xuloo xuus boo juboo da nga tefeso kon loolu na ko jigéen ñi bàyyi waaye man lii ma gis ci Sénégal wax dëgg yàlla jaaxal na ma ndax nag même dangay gis nit kuy seeg jëkkëram dem ci tele yi ci réseaux sociaux di ko weer loolu nag góor ñi ko nungu ñoo amul fayda góor gi yow defal li nga war a def ci sa soxna toppatoo ko ni nga ko war a toppatoo li la war ci njaboot gi def ko ba ñépp xam ne jëf nga bu ëllëgee fu mu yem neex am na góor ñoo xam ne buñ wàccee jigéen jigéen ji la ñuy blaame man maa la wax loolu ndax am na góor ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ay gor lañu waaw. mais ñu laa bu jigéen dee dund benn bu metti góor a dund téeméeri metti yu métti. barke mu Muhammad góor a féetewoo bi féetewoo duma yi. yaa wuti kër tabax ba mu yegg nga dugal ko ci. yaay wuti dépasse yaay fay courant yaay fay ndox yaay fay téléphone bu feebaree yaa koy faj yaay joxe dépasse bu xewlee nga jox ko ànd ak moom dem ci bokkam bu say bokk xewlee nga jox ko ànd ak moom dem ci say bokk boo dee ñu jox sa yaay sumu nag sa baay mu doon sa alal te bu tënjee ba sumi keneen jël moo tax sama baay di ma location simple la du ante libre boo dee keneen jël bu ngeen tàggoo keneen jël kon góor gi mooy perdant bi. Eh, gën a sonn ci àddina bi. am na góor yoo xam ni li ñuy daj duñ la ko wax am na góor yoo xam ni seeni jabar da leen a noot di leen maate fu leen neex yenn fu leen neex fanaan mais am na loo xam ni man de wax dëgg yàlla man laa wax man man am na loo xam ne duma ko nungu waaw man moom la ma fekk sama baay nekke woon ak samay wéy jur ay magam nekke ko samay maam nekke ko man ci laa nekk waaw teel a xëy guddee wàcc lu ma am jox leen waaye nag baat bi moom maa ko yor man suma kër amul démocratie démocratie amul sama kër lii ñuy wax nu mu tuddati euh, lii ñoo séddale góor ñeeg jigéen ñi nu amul sama kër man c'est moi y a pas parité man suma kër amul parité benn kàddu la maa ko yor maa féetewoo bëri bi maa féetewoo duma yi maay ay man maay maa tax sëdda ñëw ci kër gi maa tax ceeb ak diwlin ñëw maa tax courant bi tàkk climatiseur yi upp te ceeb buñ tàngal laay añee fii may wax ak yow añu guma barke Cheikh Ahmadou Bamba kon su ma dikkee <laughs> ñu xam ni yëg si naa waaw mais féetewoo bëri féetewoo duma yi du ma ko def wooy woy ma dem xelaatuma ko ci àddina dafa am loo xam ni góor ñoo ko war a bañal seen defal li la mais laajal li mais nag jigéen boobu ba ñu war a ñàkk fay. non amul amul am na ñoo xam ne ay complexe lañu. parce que jigéen bu fekkente ni dangaa ngaa defee def laa jomb te amul benn jigéen bu jomb góor ci àddina. ci kaw suuf ak foo mën a bokk. soxna nga kii góor la denc na la mooy sëb sëriñ. loolu yàlla sunu borom dogal. Mhm. Mhm. waaye bu fekkee da ngaa yor soxna nag ne su ma ko ñàkkee dootuma am jabar wala kii su ma ko ñàkkee fu ma jëm wala nga ne jomb na la te dafa am loo xam ni saa bu ko jigéen xasee xam ci góor dee nga. ah non bu xasee xam ni mënoo koo ñàkk pare nga. Ah, tax sama bàyyi ni ma dangay jàng bàyyi ba pare door a jàng jàpp. waaw <laughs> nga dëgg <laughs> jàng bàyyi ba pare soo koy mhm. dangay jàng bàyyi ba mokk. nga door a jàng jàpp. su fekkee da mën a jàpp te mënoo bàyyi foog nga am coono àddina faala ma ko waxoon. faal daf maa waxoon ni ma. da jàng soo jàngee. ba pare. bàyyi ba mu mokk. jàpp ba pare dong da ngay jàng bàyyi ba mokk nga door a jàng. jàpp jàpp. ndax jàngal bàyyi ba mu mokk nga door a jàng jàpp faal nag ni ma. Hmm. góor su bëggee kër gu dëgër. Hmm. am doom yu baax day day ñeme wéetaay. da jàpp ni kër gi suba ndaw si mën naa dem yóbbaale doom yépp hmm. nga laal sa bopp laal bi taaral sa bopp wutali sa bopp ci biir bi mu nekki dem. Hmm. waaw góor day ñeme wéetaay. waaye nag it da ngay nangoo muñ nag xam nga wéetaay moom muñay tax nit man koo def. asgor day jàng muñ ba mu mokk mu jàng bàyyi ba mu mokk jàng jàpp ba mu mokk diigal ca biir ngor diigal ca nu ngoo sonn diigal ca nag teraanga gi la yàlla jox nga yéene ko sa njaboot waaye nag dafa am góor ñoo xam ne yéene wuñ seen njaboot dara mm-hmm. mm-hmm. dafa am góor ñoo xam ni yéene wuñ seen njaboot dara te boo yoree njaboot yàlla jox la teraanga te teral loo leen ci dañ lay bañ